wa anta jalilun jawadul karim yuriduna wa laysa wilan Sabe como é que te dá que me ordeia e me ensinou, né? alhamdulilah onze billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe sëriñ tubaa jërëjëfe sëriñ tubaa jërëjëf cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul mahamadul mansour maa ngi lay fay sa nuyoo boobu te di nuyu àdduna wërngël sëp di nuyu sénégal rawatina mbokki ndakaaru njaay waaw alhamdulillah gannaaw bu nu sante yàlla julli ci sangu-sangu yu seydina muhammad dañuy dellu waxaat rek jërëjëfe sëriñ tubaa santaat Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba santaat Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba may am mbégte bu baax ci laaj boobu nga nga ma laaj muy tey yéeg-yéeg bu ñu am muy mbégte képp mbégte képp la ñu yëg ci li nga xamante ni moom la ñu woote woon muy woote boo xamante ni dañ koy woote ngir sant ci Serigne Touba dañ koy woote ngir ci di ci lancer ay messages yoo xamante ni day jugee day bàyyiwu ci ñun di dem ci jaam yi di wax ne ay ndaw lan te ay ndaw fu ñuy daje war nañ di laa biirante ah mu mel ni tey jataay bi loolu moo ko tënkoon mu doon ay ndaw yoo xamante ni euh, wax nañu ak ñoom dégg nañ ñu Ah, woote bi nag ah, ñu ngi ciy woote di ci sensibiliser waale di ci woote jeunesse sans tabac ni l'alcool ni drogue di wax ni tey ah, woote nañ woote boo xam daal man daal kawe na sama jot bëgg naa ci bu baax a baax a baax ak ñi ma ko seqal. waaw bés bi moom waaj nañ ko ci à l'avant dañ ko waaj ndax bés avant pendant et après la ci loolu la ñu tënku waajal ko bu baax médiatiser ko bu baax. lancé ko ci internet bu baax def suñuy flyers ba pare message bi ñu jàll ko jàllale ko ci fu nekk ndax ñun fu nekk lañuy dem ci daayira yi di dem ci daje yi nga xamante lu mel ni mariage yeeg programme yi yëngu ak suñuy su ñuy am di jàmm suñuy dëkkandoo suñuy mbokki taalibe suñuy mbokki deret ñu wootee rek ñëpp wuy suñu moo tax euh, mu demee noonu mu demee di wax ni tax tey am na gàllankoor bu boo xam ne xaw na cee am ndax ñu bëri am nañ ci empêchement ndax lëkkat bi dafa dëppoog moo am ay xew-xew yu bari yoo xam ne daje nañ ci moo tax guddi gi demee nii waaye kawe si suñu lool lool waa bëgg nañ ci bu baax macha allah. waaw pour pourquoi ñu jël euh, thème boobu dafa ni euh, euh, daanaka ndaw ñi ndaw mooy doon mag ëllëg di wax ni bu ñu waxee ndaw ndaw warta a foye boppam bu ñu waxee ndaw ndaw warut a yàq boppam ndaw dafa war a am avenir dafa war am chemin. dafa war a xam fi mu bàyyeekoo xam fa mu jëm moo tax euh, ndeem dañuy doon ay ndaw te di dajaloo te bokk euh, bokk li ñu bokk di bokk di yëkkatandoo di tegandoo kon war nañ di laabirante laabirante bi mooy di moytandiku li nga xamante ni moo ñuy yàqal ak di moytandiku li nga xamante ni moo ñuy tax def safaan ci loolu moo tax ñu lancé loolu nga xamante ni mooy dem boobu noonu. waaw ndaw euh, message bi ma ciy lancé mooy. nañu nañu nañu delluwaat ci suñu suñu doon ay jullit nañu tënkuwaat ci diine bu nu tënkoo ci diine rek bu ko defee dellu ci daara yi mën nañoo bañ a am gàllankoor boobu te nag toujours nañuy dugal ci bopp ndaw ñi ne comme message bii rek ndaw warta foye boppam ndaw warte yàq boppam ndaw warte jëfandikoo loo xamante ni dina ko yàqal te loolu rek mooy tax nga ngay def loo xam ne waroo ko def mooy tax ngay ngay nekk foo xam ne waroo waroo faa nekk waaye di profité bu baax nag di gërëmaat bu baax ñi nga xamante ni ñoom laa seqaloon mbir mi suma mbokki taalibe yi mbokki Baay Faal yi jàpp nañ ci bu baax gis naa seen taxawaay lépp rek ñoom la ñoo ma dooleel ñoo ma gunge ah di wax ni yàlla seen jàmm yàgg. waaw di di tàggoo di wax ni particulièrement vingt 24 mi nga xamante ni man daanaka fa barab ba fa nekk. maa ngi gërëm euh, son excellence directeur ba ki nga xamante ni mooy monsieur Aline Top ak soxnaam gis naa seen taxawaay gis naa ni ñu def ci bis bi seetaanuñu ma ak personnel bi yëpp maa ngi lay ziar yow moomu di euh, Mouhamadou Mansour ñëwal nga leen waaye di gërëm bu baax ñi nga xam ñoo gunge ci bis bi ku ci mel ni euh, alkom maa ngi koy bëggee bu baax lépp moom la ca ndorteel ga ba ci jeexital gi ñoo ma gunge ku ci mel Aline Ndiaye maa ngi koy ziar bu baax moom waa alkom gépp di wax ni euh, Gelor Couture bàyyiwuma leen maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax su ma su ma limee Gelor maa ngi maa ngi maa ngi lim ñëpp rek di wax ni euh, Belel Couture waaw Abdoulahat maa ngi koy bëggee bu baax a baax sama waajooju di bëggee bu baax ki nga xamante ni tamit clinique Daaru Salaam maa ngi leen maa ngi leen di bëggee bu baax ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay di wax ni boulangerie Bamba ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay di wax ni maa ngi bëggee bu baax Isma Jong gis naa taxawaayam idi mu dina Serigne Saliou gis naa ko Moussa Thioy ñoom ñëpp gis naa la rawatina Kara Sono maa ngi leen di bëggee bu baax di bëggee waat bu baax ki nga xamante ni mooy euh, waa kër borom daaru noo nooree nii électronique maa ngi leen di bëggee bu baax maa ngi bëggee le président Ousmane Dieng waaye nag particulièrement monsieur le ministre Amadou Ba gis naa taxawaayam ndax fii ma defee yëf yi moom ma ko jox Nazer Ba maa ngi koy bëggee Ba Boy maa ngi leen di bu baax waaw di di leen di leen ñaanal suñu borom dafa leen jàmm ah madame la ministre nen na Fatoumata Tall fàttewuma ko yàlla na jàmmam yàgg maa ngi koy maa ngi koy bëggee gis naa taxawaayam ci jeunesse bi ah Macky Sall de rëccuwul lu mu ko defee ah, ministre de la jeunesse maa ngi koy maa ngi koy bëggee bu baax di ko di ko ñaanal si borom defal ko jàmm maa ngi bëggee waat bu baax a baax a baax a baax bàyyi faal yi ma àddal ñëpp di wax ni bëgg naa ci ñëpp di wax ni yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm maa ngi leen jox dig daje ba beneen yoon yàlla na ñëpp am jàmm maa ngi bëggee bu baax nag waa kër si Amadou Kara Mbacke ñoo rëy nii waa Daara Sopp sëñ Fall bëgg naa ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm barke yonent bi wa anta jalilun jawadul karim yuriduna wa laysa